dal leen ci keur Bamba Imo keur Bamba Imo moy sen agence immobilière bi nga xamni dafa spécialisé wu lol ci kuy jënd keur kep ku bëgg jënd keur ci Touba ak ci mi yépp location keur ñolay gungé waye it nga am sa keur keur gu rafet defar ko ba mu yañ bëgg ñu gérer lako ba mu baax luweel lako di la verser sa ñun ñoy keur Bamba Imo fi ci Touba keur Bamba Imo fi ci Touba spécialiste lañu tamit ci ay terrassement de maison wala bok terrain plan construction de maisons les plus jëm immobilier du la Bamba Immo waaye de am agence de sécurité sénégalaise pour gardiennage gueule gueule nous lay luweel sécurité. kër de dañu koy garder de dara du fa sécurité Nous dañ ciy dox ci entreprise bu te am nañu it service sous transfert d'argent assurance de véhicules toute branche sous le siège mi ngi nekk fii ci marché Dalifort 77 339 88 55 wala 77 233 36 17 wala 33 832 37 18 suñu succursale ba ci Touba Madame suñu place ba Touba Touba 28 janook route National bi ak station Mac Kerbamba Imo 77 446 23 40 wala 33 978 40 89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 sëriñ Malick Ndiaye mii nga xam ne moo sabab bés bii sëñ Malick sëriñ bi nee na ngi lay ñaanal yàlla sunu borom dolli sa sutura dolli say xéewal te guddal saw fan lool te la yàlla sunu borom mën na ko yàlla na ko def nee na li muy wax lépp moom Malick ci sunu borom rekk la dellu ci coobareem ci coobareem lay defe lu ko neex ci doomu aadama ginnaaw bu ma xoolee pas-pasam akub gëmam akub dëggoom mu defal ko ca loola la mu bëgg lépp nee na dëgg la naam dañuy wax naan diw jaar na ci diw doog a am loola waaye nee na lépp ci sunu borom rekk la jóge tabaraka taala bi mu xoolee xool nit ki xam ko te kudul moom moo la gën a xam nit xam ne lii muy wax lu dëggu la ci moom mu jaarale ko foofee faj ci ay aajoom nee na loolu mooy lu sunu borom di def nee na nag waaye nag bëgg sëriñ tubaa xaadim rasuul bëgg gu dëggu bëgg seex masàmba mbàkke bëgg gu dëggu ku ko def nee na lépp loo nekk kanam mereka lay jëm te du dellu gannaaw mukk sëriñ Mahmoudan Mbakke sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul mayoon na ko loolu nee na ba mu ko karim ci nijaayam nee na diir bu néew sëriñ am ko fa bind kaamil bu rafet bu waw koŋ ñëw jébbal ko sëriñ bi ne na sëriñ tubaa xool ko ne ko mahmadan yaa def lii mahmadan wàcc nga maa ci des ne na lii rekk laa bëggoon def nga ko ku ko def may sa lépp ku ko deful du ma sa dara loolu la sëriñ tubaa wax sëriñ mahmoodan bi mu ko jébbalee ab kaamilam mu ne ko wàcc nga mahmadan maa ci des lu sëriñ tubaa des nag aw des amu ca lépp day mat sëkk te dara du ca manqué foofu la sëriñ tubaa xaadim rasul nekk te loolu sëriñ max moo mahmoudan mbàkke mi ngi ko jëlee ca woy juróom tedd wa di seex ma sàmba mbàkke léppam day sëriñ tubaa rekk amul dara lu mu soxla mbaa lu mu bëgg lu dul sëriñ bi rek loolu moo tax cër bii mu am ci sëriñ Touba mu am ko boob yi nag booy xool day mel ni moom la rafaatale Serigne Mahmoudan Mbakke laq ngërëmal seex ma Masamba bu baax a baax loolu moo ko may lii mu am tey jii moom Serigne Mahmoudan ndax béréb bii mu ñëw. sanc ko ci jamono ju jafe rab yépp nekk fi di ko fekk ci biir kër gi ne na tey ji mu dem ba mel nii loolu sant yàlla bu wér a wér la te loolu dey njabootu sëriñ tubaa xaadim rasul gi fi ñëw ñëpp seereel nañ loolu cheikh mouhamadul fadal mbàkke bi mu ñëwee fii dafa fekk fii doon fu ñagas lool ci zaahir ak ci baatin ndox mu nu jëfandikoo rekk amu fi woon teen bi ñu bën noon fii ci pénc mii ba ñu ca tànqee yët ko nee na daf koo mos moom sëriñ Fallu ne saf na sàpp de waaye mahmadan lii du ndox mi ndox maa ngi ñëw te bu ñëwee day doy sëkk nee na loolu ko sëriñ Fallu waxoon ku fekkee tey jii di nga xam ne loolu mooy la wér wallaahi nee na njabootu sëriñ Tuubaa gi yépp daje si nañ fii ci sëñ Mahmoudan ay doomam yu góor ak njabootu sëriñ Tuubaa gu gi ñu bari nañu di Touba Mbella ak yi nga bariwul ñoom fu ñu dem ndax tënku ci li leen sëriñ bi tënkoon rek waaye bi ñu ñëw fii ci sëriñ Mahmoudan ñoom ñëpp a ànd soxna Aminata Jobbe Jóob jiite leen nee na kon loolu xam la ne na cër bi nga xam ne sunu borom may na ko sëriñ Mahmoudan jaarale ko ci sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul mu jaar ci Seex Masamba Mbàkke ba agsi ci moom loolu ak dëggoom ak pas-pasam ak yéeneem la sunu borom mottali ci moom nee noon loolu nag kon loolu doy naa xame ne ku jox sa lépp sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul sëriñ Tubaa defaral la ko ba mu àgg foo xam ne kawe na sa njort delloowaat la ko mu di la jariñ rek ci zaahir ak ci baatin nag nee na loolu mooy taxawaalu taxawaayu sëñ Malick Ndiaye mii nee na ci pas-pas bu sëñ Malick Ndiaye am ak bëgg gu mu am ak dëgg gu ne ci moom loolu moo ko may lii mu am tey sëriñ seex nee na loolu mi ngi leen koy seereel bu baax a baax nee na ndax lu ma am sëriñ seexa sëriñ seexit loo am sunu boroom tabaaraka wa taala rek la ko delloo te wóor na ko ne sunu boroom moom du tas yaakaar du fecc wëllëre yàlla na la ko defal nee na ñi ngi sant ci bis bi nga xam ne at mu nekk nga jàpp ko tuddee ko cant sëriñ Seex Mbàkke nee na loolu lu rëy la ci nun fa tabaarakallaahu waaye xam nanu itam ne li nekk ci biir mooy sunu borom tabaaraka wa taala Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Masamba ak Serigne Mahmoudan Mbakke ñoo nekk ci biir lii ngay def nee na kon day am nañu yaakaar ne li nga ci yéene lépp ak li nga ci bëgg danga ko amee ni nga ko bëggee ci màggug sunu borom tabaraka wa taala yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak seex Ahmadou Bamba seex Masamba sëriñ Mahmoudan Mbacké ñoom ñépp seeni daraja waaye ci coobareel sunu borom nag lay dogale nag lu ko sob ca lool dana ko dogal ci lii insha allahu nee na ñuy santit dëkk bii nga xam ne fii nga ko defee te sunu borom dimbali leen ba looleen woo ñu wuy ci la ca wuy si la sawar ca lool te bëgge ko lool loolu mu dëppoo nee na loolu day waral mooy li mu rek ak ndigali sunu borom yi ak pas-pas bii nga am ak fii nga ci nekk loolu moo tax ñépp loo leen woo ñu wuy ci wuy si la ca sëriñ Seex nee na ngi leen di bu baax di leen gërëm bu baax di leen xamal ne lu baax noonu rekk lañ koy amee nag lépp loo gis ne lu baax la na la jaral lépp loo man ak loo mënul sax nee na loolu boo ko defee la nga yéene lépp sunu borom dana la ko defal te béréb bii lëggéey ak jaamu yàlla rek a taxoon sëriñ Mahmoudan sanc ko ñi ko fi fekk ñëpp fekk ko fi ñi fi defar ñëpp mu defaree leen fii loolu dimbalul sunu boroom la waaye pas-pasu sëriñ Mahmoudan nag ndax fa mu njëkk a dem digiñ la njëkk a dem dëkk boo xam ne mi ngi jege ak Bayla fala sëriñ Mahmoudan njëkk a sanc nee na barab boobu xat lool bare ay jafe-jafe lool mu seq koog njaboot goo xam ne ak njabootam lañ bëggul dara nekk ci seen diggante mu ne fa ñokkite ñëw ba agsi fi ci mbeela nga xam ne foofa la tudd niiroo ak mbela lol nee waju waaju su gisee dara day niro lol. mu jàpp ne fii la woon moom waaye bi mu ñëwee fii nag la xam ne rek la doon seet du fe won nee na foofaat mu def ko àddiya jox ko sëriñ Modou Moustapha Mbakke ñëw sanc si fii kon fii luñ fi bëgg rek suñu borom dana ko defal nee na loolu moo mu bëgg ñu fonk di Touba Mbella lool te jàpp ko bu baax te téye ko ak sunuy loxo yu dër ndax sëriñ Mahmoudan mas la bëgg dara mas la bëgg fenn fu dul rek ku jóge fii dem fekk ko Touba boo ne fii laa jóge di Touba Mbella xolam day sedd lool ci yow ku nu yëg ne jóge nga fi jëm jëm feneen xolam day tàng ci loolu ndax bëgg gu mu bëgg bërëb di tuba Mbella ak pas-pas bi mu ci am boo xam ne sunu borom dimbali na ci mel ni ko bëggee incha allahu incha allahu nee na loolu ñu ngi leen koy mi ngi sant njabootug sëriñ tubaa gi fi nekk tàmbalee ko ci seex muhammadul Moustapha Mbàkke mi ko njëkk a wuutu ba ci seex muhammadul Mourtada kenn ku ci nekk am nga pas-pas boo xam ne ci Touba fu Touba àgg rek loolaa ko fa àggale ginnaaw sëriñ Touba ma nga xam ne dëkk boobu di Touba rekk la bëggoon nee na bi muy wax lii ci sëriñ Mahmoudan sëriñ Touba li mu bëgg ci Touba kawe na sax li sëñ Mahmoudan bëgg fii te na mu ko bëggee la koy amee kon loolu ñu ngi leen ci sant bu baax di sant bu baax xalifa yi fi jaar yépp seeni taxawaay ak seeni pas-pas ak seenu gëm sëriñ ak seenu bëgg sëriñ tubaa ñoom itam yàlla dogal na ñu bëggee noonu seex ma sàmba mbakke bëggee ko noonu njabootuk seex ma sàmba mbakke loolu moo doon seeni taxawaay moo doon seeni doxin ba képp ku aju ci Seex ma sàmba ñu teg la foo xam ne duñu fa teg ñu bari loolu sëriñ Xaadim Mbàkke xasaayit doon wax léegi ci sëriñ Saaliw Mbàkke bu ñu mosaan jógee ci sëriñ Mahmoudan mu yónni ci sëriñ Saaliw dafay jàpp ne jëmmi sëriñ Mahmoudan Mbacke moo teew teewal jëmmi Cheikh Massamba nee na day lallu fee si jaadu yu rafet daal di kafe xel ko ci loxol bu tedd boobu yi fa mu nekk mu jox ko ko mu wóor ko ne du Cheikh Massamba rek la ak daraje sëñ Mahmoudan Mbacké kenn ku nekk ci ñoom loolu rekk ngay xool ci njabootug Seex sàmba gi ba ci sëriñ Siidil Muxtaar sëriñ Alhaaji Baara ñëw na fii màggalu Tuubaa la fekkee cérémonie officielle ba ñuy def mu toog ca sànni fay kàddu te booba moo fi xalifa général de Mouride loolu nee na dara kawiwu ko Cheikh Mouhamadul Mountakha mi fi ne pas-pas boobu mu am mooy bu toll ni ñooñi am rek mbaa sax nag mu kawe ko ndax nee na sëñ Mountakha doon na koo xam ne bëgg-bëggam ci njaboot gi kawe na lool am na pas-pasu lëggéeyal sëriñ tubaa ak mottalil ko li mu nesaroon naaloon ko àggaliwu koon mu àggaleel ko ko muy daara ji kon yàll na ko dimbali defal ko tawféex ba procès boobu mu wax dara bañ a laal suuf Ben yoon ba mu sotti coleet ag, fa mu war a te nu fekke ko te ànd ko ak moom nag yal na ci yàlla dimbali ci loolu ma di leen xamal ne liggéeyub sëriñ Tuubaa bu ne kenn ku nekk war nga caa bàyyi sa xel bu baax lu di deflu bu ñu wootee di ko dajale lu ca jëm nee na mi ngi sàkku ci njaboot gi ñu gën a fonk loolu bu baax di ca def lañu am bu baax lépp te bu ñu ko defee lañu ca yaakaar sunu borom dana leen ko defal njaboot gi nag yàlla dafa dogal baaxawuñ di tege lu nit di def lu nekk ci sa coobare nga koy defe waaye loo ca def lu nekk itam boo demee ab diir da nga ne su ma yëgoon def lu ëpp lii ma def nee na kon loolu mu ngi leen ci soññ bu baax a baax ñu gën cee dolle góorgóorlu. ndax at mu nekkat mi ngi am ni mu war a amee di dox nag ni mu war a doxee te du yaatu lool yëgle bi itam du yaatu lool waaye pas-pas nag moo koy lal ba nga xam ne bu sottee mat jëf sëkk loolu nag laabiire rek laabiire leen rek mooy tax ñu wax lu nekk ci biir li nekk ci biir loolu waxtu bu ñu ko wootee kenn ku nekk la nga war a jëf def ko ca loole na ko jëf nag ba mu mat sëkk ba li nga xam ne yéene nanu koo lëggéeyal sëriñ Touba yéene koo lëggéeyal Seex ma sàmba ci bërëb yi ci ak ci jàkka yi ak ci jumaa yi ñu def ko ba mu mat sëkk yal nañu ci yàlla boole dimbali ba ñu man caa sax dakk ca ban caa bàyyi dara sëriñ bi nee mi ngi leen di gërëm bu baax di gërëm njaboot gi nga xam ne ñoom nekkal fii di njabootuk sëriñ Mahmoudan Mbàkke te mu wóor ma ne taxawaay ba suñu wayjur taxawoon suñuy wayjur taxawoon moom rek lañu taxawee ñoom itam di ca góorgóorlu nag bu baax yal na yàlla dimbali leen defal leen tawféex ak taysiir ba li ñu yéenee def lépp ñu def ko ba mat sëkk te loolu de ñi ngi ci dal xel bu baax ndax bërëb bii bu benn xew amee muy korite walla tabaski wala lu mu mën a doon doomi sëriñ mahmadan moo fiy nekk jiite ko ba mu àgg ba mu sotti coleet mel ne mel na ka nga xam ne mooy mag moo fi nekk te nekku fi kon loolu bërki démb rek doy na ci tegtal ne na korite gi sëriñ aboo mi moo fi nekk ak sëriñ Mamor mi ak sëriñ Cheikh Mbacke mu mel mat na sëkk ci jëf yi ak ci teraanga yi ak ci waxtaan yi ne na kon loolu mi ngi ciy sant bu baax a baax te boo demee ba Touba pencum foras Tahawai bu mel noonu la fa njaboot gi taxaw ci njiitul Cheikh Fadal ak Jili ak sëriñ Abdul Khadir. moom itam dara manqué wu fa ne na boo demee Cheikh Amin moo fa nekk ànd Samba ak njaboot gi lépp mel na wara mel loolu nag tawféexi sëriñ Mahmoudan la waaye du lu yomb de kon loolu nee mi ngi leen ci sant bu baax a baax a baax yéen bu ko defee nun itam ñu nekk fa xalifa ba nekk joxe fa julli def fa yi kori wala muy tabaski yi ñu fa war def yëpp ñu def ko nee na kon Mahmoudan la pas pasam nii la ko sunu borom dimbilee ba mu ba lu mu bëgg a def rek man koo def nee na ndax sëriñ Ahmadou Mbacke jàmbaar ja fi nekkoon moo jiite woon loolu yoon Ahmadou ba nu ànd ci ak moom ñun hamko, nu maase xam ko di jëfee namu don doon diglee di bàyyi lam doon tere rek nee na loolu ca lañ nekk ba léegi dara soppiku soppiku ci bi mi ngi leen di sant bu baax di gi jëpp di leen ñaanal yàlla li ñu bëgg gën a bëgg te mu gën ci ñoom yàlla na leen ko sunu boroom defal nee na amul kenn koo xam ne sàggane nga dara ku bokk ci njaboot gi rek am nga pas-pas boo xam ne sunu borom mën na laa dimbali. ba la nga bëgg def lépp ci lu baax nga mën koo def nee na sëriñ Maam Moor Mbàkke mii noonu lay doxee ci biir njaboot gi sëriñ Cheikh Ahmadu mii noonu lay doxee di taxawu loo xam ne ñu war a dox te doxuñu ñëpp mu dox loo leen kon sëriñ bi nee na mi ngi leen ci sant bu baax a baax ci loolu di leen gërëm bu baax a baax a baax baax di sant it. itam. mboolem taalibe yi. yi. dëkk ak sëriñ bi fii. yi nga xam ne tarbiyewu nañu. ba wàcc. dëkk ak moom. di ko wéttali ci dëkkam bii. te mooy njaboot gi fi des gépp sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm bu baax. di leen ñaanal yàlla. yàlla na yàlla mottali seeni yéene. ak seeni tawféex ak la sëriñ bi bëggoon ci ñoom bëgg ko ci dëkk bi sunu boroom defal leen Malick Ndiaye sëriñ bi ne na yal na yàlla defal la dolli la bu baax dolli la sutura dolli la ay xéewal ba li nga yéene nga man koo def ba mu mat sëkk sëkk te bañ a am nag benn gàllankooru àdduna nee na yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def nee na mi ngi sant njaboot gi yëpp yëpp itam nee na bàyyi kenn di leen xamal ne yu baax yi mi ngi koy amee rek ci jëf yu baax yi rek li sëriñ bi di wax ne نانا لي سيرن توبا دي واخ نان واخ دي العوائج لسنا دامو في خدمه وهب له مرامو نانا نغا فاج اديو بيند في ليپ لو نو ساب تي كيب كو خامني ميغي صح تي ديما ليغيال تديكو ليغيال موي صح تي لي نيه سونو بروم غا ديكو ديف دي باي لي مو تري ne na kooku daal la sëriñ tubaa ñaanal ne yàlla na sunu borom faj aajoom ci kooku alhamdulilah sëriñ bi ne na Malick moomu lii ci ñooñu la bokk yàlla na yàlla dolli la sutura bu baax a baax dolli la tawféex ak taysiir bés ba itam yàlla na ko sunu borom delloosi te ñu fekke ko nun ñépp te tal ko te luñ am ci ay ngëneel yi ci bés yi ko jiitu woon bés bu ñëw bés bu ñëw rusloo bés ba weesu te yàlla sunu borom mën na ko yàlla na ko def sëriñ bi nee na ñu maase dollee góorgóorlu baax te xam yi baax yi boo ko borom dimbali la ci te bërëb bii de ku fi koo baax wóor na ma ne danga nga ko mën a am nee na nañ ci góorgóorlu bu baax a baax ci bëggante di soppante toppante di wormaalante nee na loolu de bu nu ko defee li nu fa bëgg ci lu baax lépp suñu borom daan nu ko defal ndax loolu la sëriñ bi bëggoon kon nag ku ko ci jàppale sikkiwul ne ni nga ko bëggee rek noonu nga koy amee yàlla nanu ci yàlla boole dimbali ba yépp mat ci sëpp ni nu ko bëggee nu amee ko noonu yàlla mën na ko sañ na koo def itam yàlla na ko def sëriñ xaadim mbàkke xasida itam nee na li mu waxoon keroog rek la koy waxaat nee na pas-pasam ak yéeneem ak bëgg-bëggam sëriñ bi nee na xam nañu ko bu baax a baax yàlla na ko yàlla dimbali ci barkeb xasida yi ba ni mu ko bëggee rek mu amee ko noonu yàlla na ko yàlla dimbali nee na ndax kenn ku nekk da ngay nangu dogalub sunu borom ci dogalu sunu borom ci sëñ xaadim mii mi ngi ci xasaa itam yi rek nee na loolu yi mu wax léegi mooy li am solo léppi sëriñ tubaa rek mu ngi ci xasiide gi te yàlla sunu borom may na ko ci nag loo xam ne bariwul ñu mu ko may nee xam gu mat sëkk kàddu gu ko mën a ba mu wér ak pas-pas bu wér nee na yooyu la sëñ xaadim boole doog def lii muy def yal na ko yàlla dolli sutura bu baax baax te defal ko tawféex defal ko ay xéewal ba li mu yéene ci xasida yi mu amee ko ni mu ko bëgge ak mbooleem ñi koy ñi koy jàppale ak mbooleem ñi muy àndal ñépp nee na ndax xasaayit moo demee noonu day mel rekk ci misaal ne kenn rek mën na koo def waaye mbooloo itam mën nañ koo def nee na loolu yi ci sëriñ Tuubaa la jóge nee na def na fii daaj boo xam ne sëriñ bi rek ko doon def nee na boolewaat na fukki nit ak juróom ñuy jàng xasiida mu mel ni kenn nitay jàng nee lolit loolu it ci mbirum sëriñ bi la mooy kuréel yi ngeen gis mooy kuréel yi nee na daanaka yeneen jàng yu day duy kon nag nanu ci bokk bu baax baax te sant ci Seex Masàmba te xam ne léppam ci xasida yi la nekk ndax ko ci ba fu mu àgg mu àgg fa tey jii ku ko mën a jàng mu wér ci mom la jógee moom Seex Masàmba kon nag loolu doy na sëkk tegtal ci ne Seex Masàmba xasida yi ñoo sàkku ci Sëriñ Tuubaa mu dénk leen sëñ Masàmba nee na li mu ci man ak li mu ci def kenn mënu ko li mu ci génne kenn mënu ko kon nag ñun ñi bokk ci moom nanu dolli góorgóorlu bu baax te xam ne tege nanu ci yoon woo xam ne na nu fexe nag ba bu nu ko wàcc bu nu ko wàccul danu a dana nu àgg lii sëriñ bi doon nettal léegi la tàmbalee ca ba nuy ji sëñ Cheikh Gueye maam jaara ba ba muy dem ca bool ba nee na bari na loo xam ne am nay gàllankoor àggut waaye nee na li àgg yàlla na nu yàlla boole ca lay àgg ba nu àgg àgg àgg mat sëkk yàlla man na ko yàlla na ko yàlla def sëriñ bi nee na mi ngi sant bokk yépp nee na dëkkandaw yii ñu dëkkal ci dëkk yii wër Touba Mbella ak ñu jéggi foofu sax nee ndax mbooloo mi ku ne ñëw na fi tey ci Sénégal ñi jóge Ndakaaru ñi jóge Touba ñi jóge fu ne daje nañ fii ngir yàlla ak Malick Ndiaye kon yal na leen yàlla delloo ci jàmm te li ñu fi doon wut si ñu am ko nañu ko sàkkoo yàlla nañu ko yàlla boole defal sëriñ bi nee na mi ngi leen di gërëm bu baax di leen sant bu baax muy góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi bàyyiwunu kenn kenn kenn ku ci nekk daal jéego ya nga fi ñëwee ak ya ngay delloo yàlla na ko sunu borom def aw yiw yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na ko def sëriñ bi nee na ñu ngi leen di sant bu baax a baax jërë ngeen jëf loolu daal kon noo comment amul commentaire yaakaar naa kàddu yooya ah. waaw kon daal nee na li ci ëpp solo mooy ñu def li ñuy def ba mu àgg nee na moom daal moo moom xolam sedd na Nenek na sedd na ci jataay bi sedd na ci teraanga yi doy na sëkk fa tubaarakallaahu dara mankiwul yàlla na nga ko yàgg a def te gën koo man ba li ngi ci yéene borom defal di gërëm di leen sant wa rahmatullah na wax amin ak ñaan amin koy

allahumma leen dal leen jàmm ci kër Bamba Imo kër Bamba Imo mooy seen agence immobilière bi nga xam ne dafa spécialisé wu lool ci kuy jënd kër képp ku bëgg jënd kër ci tuuba ak ci réew mi yépp ñoo lay gunge location kër ñoo lay gunge waaye it nga am sa kër gu rafet defar ko ba mu yànj bëgg ñu gérer la ko ba mu baax luweel la ko di la verser sa xaalis ñun ñooy kër Bamba Imo fii ci Touba kër Bamba Imo fii ci Touba spécialiste lañu tamit ci ay terrassement de maison wala boog terrain plan bâtiment construction de maison lépp lu jëm ci immobilier jokkoo la kër Bamba Imo waaye nag dañu am agence de sécurité sénégalaise pour gardiennage dëgg la dañu lay luweel sa kër waaye dañu koy garder de dara du fa yàqu sécurité ñun dañ ciy dox ci entreprise bu wér te wóor am nañu it service transfert d'argent assurance de véhicules... toute branche suñu siège mi Fichin Dakaro. marché Dalifort 77 339 88 55 le 77 233 36 17 le 33 832 37 18 sous succursale ba madame ci Touba Palace suñu Touba Touba 28 Jano route nationale bi ak station Mac Imo 77 446 23 40 le 33 978 40 89.